ayca ñu ngi taxaw ak benn soxna nii ñu fas yéene laaj ko li nga xam ne nii moo xew actuellement au niveau de Derklé Daaru Salaam si ndox bu maanaam bon lañ ko mën a waxee ndox bu bon bi nga xam ne mooy xeele si robinet yi ah te robinet gi nag wax dëgg yàlla eh, nit ñi dañuy jàpp di si julli ñii ñu ngi si naan ah ñii ñu ngi siy fekk seen i besoin ñii ñu ngi si togg añ donc eh, soxna si maanaam tey eh, noo gisee mbiri li nu mel. tey mbir yi moom. ni ma ko gisee mooy damaa yeewu di jàpp. ba ma jàppoon noonu ba ma jàppoo ba yegg ci sama bakkan gi xet bi xeeñ ma ma ne waa lii bouché la wala lan ma jàpp waat xoolaat affaire yi nag daal di gën a xeeñ ma ne xanaa di ndoxu foos bi la ma yaakaar ne suñu foos bi la sax mais ba ma laajtee ma génn si biti laajte am benn soxna bi ma dajal mu yor butéel di rooti moom it mu ne ma seen ndoxu robine bi la ci boppam moo am bouché. mais mais mais mais su ma la su ma la doon laaj lan moo waral loolu. lan moo tax ndox bi jékki-jékki di xeele si robinet yi te li nu mel si si maanaam canalisation yi lañ ko doon gis si ndoxu foos yi lañ ko doon gis si si kanaal yi si si rigole yi mais lan moo tax mu jékki-jékki di xeele si robinet yi ah mooy ñun ñëpp noonu lañ ko gisandoowee tey ci suba si nii tey ñun ñëpp moom lañ ko gisandoowee fu mu toll nii dëkk bi ñëpp même wax bi la ñuy wax robinet boo ci tijji ndoxu foos nga ciy fekk te ndox boobu ndox bu bon la te nit ñi xamee nañ ko woon ci ndox boobu noonu mooy ay ndoxu euh, toilette boo demee ci toilette ndox bi ak ndoxu bouché wala canali canalisation yi nekk ci tali bi yooyu lañ doon xam ci ndox yooyu noonu mais robine bu demee ba xellu ndox bu bon boobu kon ñun xamatuñu ban monde lañ nekk ban dëkk lañ nekk xamatuñ ban monde lañ nekk ban dëkk lañ nekk donc daal di dañuy jàll si biir rek dem gis yeneen yeneen yeneen yeneen personnage yi nga xam ne nii ñoo ngi fii nii ah, dem dénk leen micro bi daal di waxtaan ak ñoom soxna si jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal kontaan nañ bu baax a baax si moom ah. maa ngi gis tamit maa ngi gis benn maa ngi maa ngi gis benn benn benn bayfaal bu taxaw nii ah dama koy dama koy dénk micro bi rek daal di moom tamit ah sama waa gi maa ngi lay nuyu baa yaa ngi si jàmm maa ngi lay ziyaare bu baax maa ngi nuyoo bu baax a baax a baax alors tey ñu ñëw fii nga xam ne nii euh, mooy au niveau de Derklé mu am lu fi xew li fi xew nag defe naa ne euh, euh, yéen ñëpp xam ngeen ko maanaam ndox bu bon bi nga xam ne ni mooy génn si robinet yi di génn si sas yi ah, loolu la ñuy ñëw di di bëgg a waxtaan ak yéen maanaam tey tey lu si sa waaw xanaa di ko ñaalu rek di ko ñaawlu baax a baax a baax. di si interpellé tamit direct président dara de la république. ndax li ñu dund fii métti na trop. xam nga ne bii ndox. xar sax bëgg ko wala nag wala mbaam ba nit ba nit di ko naan te loolu dañ dañ si war di dox ay jéem. mais li ma bëgg mooy ñu toog ñu toog. dama bëgg ñu toog ñu mbir bi tuuti. Mhm. waaw waaw loolu dañ si interpellé euh, président de la république direct ak ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox bi ndax lii dafa ñaaw ci dëkk bu toll ni Sénégal. xam nga lii lu loo xam ne boo ko wanee sax xaj du ko naan wala mbaam du ko naan xam nga nit mu waru ko mënal naan. te te dogu ma la maanaam nit ñi nit ñi ah, ah, am na ñoo xam ne maanaam seen seen seen seen loxo jotul seen seen ginnaaw mënuñu dem si boutique yi di jënd ndox wala ñëw xam kaay naan bii nii ngay gis ah da jëlal ma kaay naan bi nit ñi dañuy ñëw foofu noonu di root mais ñi nga xamante ne ni amuñu xaalis pour loolu fan la ñuy jëlee maanaam li nga xam ne nii mooy ndox bu sell ngir naan ko. mooy li ma léegi loolu dafa ñaaw ci Sénégal parce que bu ñëpp mënee jënd kaay naan du ñëpp du ñëpp ñoo ko mën a jënd quoi. Mm. xañ nag yow mën ko jënd man mënuma koo jënd. Mm. tëkkale fa day daal di metti mais loolu dañu war a dimbali ci ndox bi bu fekkee ñin ko dénk hmm. mënuñu ko ñu jëlee ko si ñoom jox ko si yeneen loxo ndax biñ ko joxee ba léegi dañ fay deful leen loo xamante baax la hmm. ay la ñuy gis ay coupure ndox facture du seer te amul te population baa ngi ci gën a mais lii dafa ñaaw. te te li si gën a yéeme da maanaam li si gën a yéeme mooy euh, gis nga euh, comme nit ñi fu mu ne nii naanuñu ndox bi mais bu weer bi dee bu facture yi ñëwee ngay bëgg dee. dafa seer dafa dafa parce que boo doon fay 5000 francs bu bu ñu amee facture di nga fay presque 15000 francs ba pare ndox mi ngay consommer baaxul xam nga loolu tamit dafa ñaaw. dafa ñaaw dañu see war a jàppale nag ci loolu. bu baax a baax looy looy conseiller nguur gi. li may daal mooy bu fekkee ñu dénk wàllu ndox bi hmm. mënuñu koo gérer wala mënuñoo jox qualité ndox bu baax jéem a xool nu koy def bu jëlee ko seen loxo jox ko ñeneen am ndax am na ñeneen ñu ko yoroon hmm. buñ ko yoroon lii daaw fi am xëy na ñu ko jox nii tamit si ñoom la tàmbalee lii te lii te lii dafa ñaaw bu fekkoon guddi la sax nga xelli ko naan ko day mën a andi beneen feebar ndax bu dee bu tëg dañ ko gis mais bu fekkoon guddi nga dem xelli ko doo gis dara mën ko naan noonu tey indi la beneen conséquence boo xam doo xam foo ko waxee ji te lépp à la kon daal nañ baax a baax a baax a baax waaw jaajëf kontaan nañ si moom bu baax a baax moom Saliou ah tur bi sëñ Saliou sëñ Ndaw waaw waaw Touba waaw jaajëf maa ñu ngi bëggee bu baax a baax kontaan nañu ah kaddu yi am na solo alors damay xuus rek damay xuus gën a dem si biir daal di euh, maanaam gis naa sama benn euh, euh, copain wala sama benn xarit bu toog moom it damay ñëw rek den ko ko micro bi ñu waxtaan li nga xam ne nii moo xew biir Derklé ah grand maa ngi lay nuyu maa ngi ziar. naka mbiri magal. yaa ngi si jàmm. bu baax a baax. yaa ngi féexlu. waaye maa ngi féexlu waa Max maa ngi nii toog tali bi di féexlu ndax tàngaay bi. noo def ak tàngaay bi. waaye gis nga tàng rek Max tàng rek. Eh. ñaan yàlla ji mu taw. mais mais mais mais mais dafa am loo xam ne nii dafa xew actuellement. Uh-huh. du ma wax sax au niveau de Derklé uh-huh. mais mun naa ne si banlieue bi si centre ville bi ah si maanaam yeneen gox yi nga xamante ne nii ñoo wër ñoo wër au niveau de Derklé uh-huh. maanaam li nga xam ne nii mooy xew mooy maanaam ndox bu bon bi nga xam ne nii mooy xeeli si robinet yi. Hmm? te ñëpp di ko kaas muy waa Derklé di banlieue ba ñëpp ñu ngi kaas li nu mel alors tey euh, lan lan moo si sa xalaat. waa man de mag benn benn affaire moo ma jaaxal dama ñëw léegi léegi suma kër euh, añ ba pare ma gis euh, soxna si teg añ maañ ba pare après bi ñu paree mën ne sama doom bi may ñu ndox nga ko si glacière bi léegi bu mu xelee. ma dem bay may téer bi si boppam parce que dama koy tooñ moom mu naan ma sama mbokk Baye Fall la ma koy tooñ na xaaral balaa may naan moom laay njëkk jox mu naan mais bi ma xelee ma gis ndox mi mu am changement de couleur ma def nii ndox mi ma xeeñ sama loxo mais mu mel ni comme foos léegi ma laaj sama benn dëkkandoo mu ne ma xam ñoom ñoo nekk en grève dafa mel ni comme ndoxu foos yi ak ndoxu robinet yi moo jaxasoo ci laa ne immédiatement sama doom yi këpp leen bidon yëpp bi ñu këppee seen kër jege na leen fii ma ne dem na seen kër maam ñu dem fa di rooti fekk robinet yi tëj dëpp boobu nag laa ne sama doom yi kon xaala ñu dem jéem a jënd benn 10 litres ñun naan ba si kanam tuuti ñu xool. mais mais doguma la dama dégg léegi si sa biir wax nga ne dafa am ñoo xam ne ni dañoo nekk en grève mais même bu ñu nekkee en grève loo maanaam population bi ñoom seen yoon nekku si maanaam ndox bu sell bi nga xamante ne ni moom moo moom moo nekk si réew mi dañ ko war a jox askan bi ba mu ba mu ba mu doy sëkk. waruñu jël ndox bu bon bi nga xamante ne nii moom moo am ñu koy ñu koy bàyyi su robinet parce que boo xoolee euh, actuellement Sénégal wala dakaar dafa bëri ay xale yoo xam ne ñi ngi fi dafa bëri ay liir nit ñi dañuy jàpp ah nit ñi dañuy dañuy dañuy togg añ donc est-ce que est-ce que tey maanaam euh, euh, fët bi fët bi. Mhm. maanaam fët bi si signal la. waaw Maguette ndox mi ndox bi ñoo koy naan suñu njaboot a koy naan buñ dee naan ndox tamit yaakaar naa ni yow miy joxe ndox sax yow sa bopp yaa war a njëkk naan lu baax tey nit ñi ngi dem di jënd si. ndoxu machine yooyu kaay naan yooyu waaye man yooyu man kiiwu ma ko waaw man su ma mënul jënd jënd ji nga baal ma si ab wax publicité bi sax du ma naan ay kireen laay dem naani ji su ma mënul am ndoxu kireen ma fu ma romb ndoxu sachet wala butéel yi ma dem jëndi te sama njaboot tamit loolaan souhaité pour ñu dem naan mais comme dañ nekkoon en famille nii añ waaw moo tax man ne sama téer bi xaaral ma xel la fii ndox nga naan mais ndox balaa ma ko doon naan ma man ma njëkkoon naan balaa ma koy jox mais dama gis tey ndox bi nu mel nii ndoxu foos ak ndoxu euh, robinet yi ñoo jaxasoo waaw bu ngeen nekkee en famille day dem xel ci robinet bi ñëw def ci glace bi naan ku dem bay jënd glace ndox robinet ngay xel naan waaw mais li ma gis tey du ma ko naan te du ma digal mu naan ko te suwéetewu ma kenn naan ko waaw bi ma yéen ne xale yi dem leen seen kër maam ngeen dem root ci ndox boobu ngeen naan ma dem fekk sama kër pap robinet tëj waaw mais ndox bii nii moom war nañoo dimbale nii ko ñu ko saan sax askan di ko naan ba xale yi di ko naan ndox bi baaxul setul sellul mais li ma le maanaam conseillé lan la ban conseil ngay jox le président de la république Sénégal Macky Sall moom mi nga xam ne moo njaboote wax dëgg yàlla askan bi. waaw kooku moom ndaanaan la ndaanaan la lu may ñaan yàlla daal mooy xam nga lan ñu dimbale ñu waa seen woo ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ndox bi ñu dimbale ñu ngir yàlla jëmmi rasulaay rek ndox bi ñu jëm ko xool selal ko ba askan bi yëpp mun ko bokk fii Sénégal ñoo bokk nday ak baay ñu ñëpp bokk nday ak baay lu waaye def rek sa njaboot nga ko def wala sa mbokk nga ko def fëkk koo dugg rek am mbokk am nga fa lépp ñu si ndox mu sell rek boo xam ne nit ñi duñ ko mun ko waaw jël ndox mu bon sax di ko fóotee baaxul asama laa nga jékko du ko naan parce que bis biir moom lu xas ba dugg see dugg na si waaw. max waaye jërëjëf ay ca ay ayca mi ngi noonu robinet bi nu mel. Hmm? gis nga ndox bi nu mu mel nii ndox bi dafa dafa jàpp maanaam couleur bu bu bu xaw a verte. waaw te te te xaaral déglu suñu papa ji lu mu wax. acca tonton ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay mais ndox mi sax euh, nu mu mel nii. Mhm. gënoon na verte sax. gënoon naa verte et puis ça sentait mauvais là. Mhm. on dirait c'est du sabotage je ne sais pas quoi. Mhm. ah lu si sa xalaat. xëncul xëncul parce que mi ngi wax dëgg yàlla mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gël. lii la askan bi di dund lii la askan bi di naan. ah li lii la peuple bi wax dëgg yàlla di jànkonteel wax dëgg yàlla ah, rafetlu ñu ko benn yoon rafetlu ñu ko wax dëgg yàlla suñu papa yi ñu ngi kaas suñu yaay yi ñu ngi kaas suñu doom yi ñooy naan si ndox bi suñuy frères yi ñoo siy naan il faut il faut ñu desoo dénoncer lii parce que lii nii baaxul. ah même pas donner ça à un animal ça là un mouton même ne doit pas boire ça ça c'est c'est c'est pas humain ça. alors alors papa lu la moo si sa xalaat léegi. ah mais sama xalaat mooy kii euh, bu yaboo euh, euh, comment dirais-je ministre bi jóg li mm. ma ki yore lii ah affaire ndox mi. Mm-hmm. avec leur problème la même j'ai entendu aujourd'hui que ils vont lever un ordre de grève je ne sais pas mm-hmm. mais ça ça ils penser aux populations ah ça c'est pas normal. Nous sommes des humains. Et puis, à, on est au 21e siècle. Même au village là. Même les, les, les eaux du marabout, de, du marigot sont plus potables que ces, cette eau-là. lii moom dafa ruslu dafa ruslu lii regarde saa xoolal mais gis non seulement c'est pas limpide mais ça sent mauvais. alors alors gis nga li nga xam ne nii euh, dadi mooy ndox bi nga gis nii lii boo ko naanee wax dëgg yàlla baaxul ñoo ngi ñaan euh, euh, sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi yëpp rawatina derkale bi nga xam ne nii ah, fa lañ dëkk bu kenn naan ndox bi ndax ndox bi nii baaxul lii boo ko naanee dalay dalay indil ay ay ay ay jàngoro dalay indil feebar te dëkk bi métti na métti boo xam ne ñaanuñu maanaam suñu frères yi di di feebar wala suñu sœurs yi di feebar ñu leen di yóbbu hôpital di dépenser jeex ah, président de la république du Sénégal moom mi nga xam ne moo jiite réew mi hmm, wax dëgg yàlla ndax xam naa ne lii nii dina ko gis. Ah, te dina dégg non ko ko woon c'est le président non ko ko woon lui-même il doit regarder ça il doit voir ça comme po bi ni ko def nii ah. le président doit voir ça ça c'est pas normal ça au village même on tu vois pas de l'eau qui est comme ça on le voit pas. ça c'est pas normal moom war na jóg si gars yi li ñuy saytu actuellement nii seen revendication xaw ma lan la mais war na nu xool un terrain d'entente parce que bu ñu fekkee ne produit alimentaire la vraiment bu warul bu bu euh, buñ si buñ si euh, comment dire euh, ñaxtoo ak lu mu mënti demee ñun population bi war nañu jox quelque chose de propre quelque chose de limpide ah mais lekk gu baax nit ki amul lu dul lekk ak naan lekk bu baax ak naan bu baax actuellement même lekk gi baaxul. te te li ñu li ñu li ñu xaw a jaaxal si mbir yi euh, li ñu li ñu li ñu xaw a jaaxal si mbir yi mooy euh, euh, gouvernement bi doo gis benn autorité bu génn taxaw dénoncer li nga xam ne nii moo. am ñoom duñ ko naan. mais ñoom il boit pas l'eau de du robinet non non ñoom duñ ko naan même même ndox yi dañuy sóob rek ah ay ay ay ay Casamance ak yooyu duñ ko sax naan seen ndox mi seen ndox bi mi bi ñuy naan moom ah ça waay <laughs> waaye yow ñi comment <laughs> yéen duñ ko naan ñoom mën na la ndoxu robinet ñoom ku leen tegal kaamil xam ne duñ ko xam waay yow. mais est-ce que xam nañ fii fii réew mi toll. ma jë dëkk bi ni nga gis mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu ngi koy dund. ah mon frère gis nga ñoom nii ah ñu li ñuy dund ñoom ba ñuy am 15 ans 20 ans dund nañ lu ko raw ñoom ñoom c'est des pires sénégalais xañ na xañ na seen daraja moo leen yóbbu foofu hmm, man mënoon naa jekki-jekki nekk foofu du dëgg ñoom ñëpp ay villageois lañu. Hein? Ils ont vécu au village d'abord, au milieu rural, avant d'être dans le milieu urbain. Président de Luna Village. Hein? Président Fila Djangé. Mosul Gen. Non, waxante dëgg fii la jànge village la jànge ñëw ba nekk si cité bi jàng dem université génn a ñu ñu mais moom échelon yëpp la am moo nu gën a xam lépp xoolal li gerte caaf di saf moo nu ko gën a xam ah ngurbaan ngurbaan moo nu ko gën a xam mais nan waxante dëgg nag ah ah mais xoolal ñun nga président bi ñun li nuy dund moom xam na ko ñoom ñëpp dund nan ko waaye tamit sama sëñ ah waxante dëgg waaw alors boo xoolee suñu suñu suñu suñu papa gi maanaam uh, ni muy waxee rek nga xam ne li muy wax dëgg la si moom li muy wax da koo da koo da koo da koo métti lii nga xam ne nii moom la ñu gis nii muy ndox bi ni nga xam ne mooy ndox bu bon bii di xeele si robinet yi ah métti na askan bi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi lancé appel nag monsieur le maire Cheikh Gueye bu Derklé na bàyyi xel askan bi dëgg la mi ngi liggéey mi ngi liggéey gox bi nag waaye maanaam na bàyyi xel maanaam lu mel nii nga xam ne lu mel nii bu bu amee na na na génn def sorti wax na génn def sorti wax. gis nga ndox mi nu mu mel ni man j'ai failli le boire ah parce que euh, maa ngi woon ci bi ah ndox bi ma doon jël c'était de l'eau limpide ma jël sama cafetière bëggoon naan kafe ah ma ma jël sama sama cafetière man root naa si sans se rendre compte quoi que dama yàkkamti mais nga ma ko tegi si cuisine bi bay waaja sama seex bi moo daw ñëw ma papa bu ko bu ko naan ndox mi ndox mi dafa xeeñaa ah. ma ne ko nga ne lan mën mën non bàyyiwuma dama ko doon naan gaayen heureusement sax xañ doon tàng bu tàng peut-être am ay microbe mais mais ça sera pas tout fait du yoon ñun ay nit lañu sénégalais yi ñun nii mérité wuñu ko ah nañ waxante dëgg ah mérité ko surtout ñun ñii ah sénégalais si boppam moom mérité wul lii ah boo xam ne yow ah euh, yow yaay nekk euh, royukaay ah ah yow yaay pays boo xam ne ñëpp si yow la ñu rey ah capital ah yow yaay capitale de l' Afrique occidentale ñëpp fi la doon roy ñun duñu xale am na ay soixante et ah Senghor bi muy jël bi mu nekkee si réew mi quand même dund nañ ko dund nañu Abdou Diouf ah dund nañu Ablaye Wade ah dund nañu Macky mais Macky il du mag waaw mais xale yi dund moom dund la lu ko raw xam na ko nan si dimbale waay ah nan nan si dimbale kontaan nañ nan dimbale si lekk gi ah nit ñi lekk tudd man xoolal man fast food laa yore man social laay def sax samay samay chandu sax yokku ko lépp a yokk mais dama ko bàyyi noonu kii waxtaan naa seeg moom ma ne ko man je fais du social yokku ma ko maa ngi doon wax kii sax maa ngi wax kii sax benn benn laa bëgg fii parce que dama fi tuxu y' a presque maa ngi sama deuxième année. Hmm. ma ne ko fii laa fi bëgg sax bu ma fa amoon benn def ko social. ñëpp ñëpp lekk. waaw man tey te xoolal te man mii hmm. aw ma doole. mais <laughs> ñu loo mais ñu ëpp ah? ah? fàttali ñu tur euh, euh, la. Hmm. jaraaf suñu papa jaraaf dégg ngeen am solo yi nga xam ne wax nañ ko <laughs> ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ah, waaw waaw. dañuy wax Sadio Mané. ci football bi. ah. Hmm. mais Sadio Mané fépp la war a am. dëgg la dëgg la. ñëpp a war a doon Sadio Mané. jërëjëf papa li ngeen ah? li ngeen bëgg nañu gën a waxtaan ak moom nag waaye li ngeen ñu may si temps maanaam dafa dafa dafa dafa jeex tàkk tàkk. ah jaajëf kontaan nañ bu baax a baax. ay tam mi ngi noonu mbokk yi gis nga li nga xamante ne nii moo am au niveau de Derklé Darou Salaam nii la amee si banlieue bi nii la amee feneen ak feneen ak feneen si biir réew mi ah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi wax euh, le président de la République de Sénégal Macky Sall mu mu mu dimbali ñu si li nga xamante ne nii moo xew actuellement si si si gox yi bëri ah et puis et li ñuy jànkonteel dafa bëri ah taw bi. ndox yi ah dund bi seer na dëkk bi métti na jeunes yi amuñu liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi ñoo ñoo ngi masawu en tout cas peuple sénégalais bu baax a baax a baax di leen wax ne rek ah, ak Maguette la voix d'or la woon si seen Smart TV si li nga xam ne ni mooy actuellement li xew si si si si dëkk bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal kontaan nañ jaageen jëf waay